wasalaatu wasalaamu ala sayidina wa nabiyina wa maulana muhammadin almabuuthi rahmatan lilaalamin arsalahu llahu subhanahu wa taala wa huwa arrahman arrahim ila annaasi kaafatan rahmatan lahum haythu qaala fi muhkami tanzilihi wa ma arsalnaaka illa rahmatan للعالمين ونحيي المشاهدين والمشاهدات في كل مكان الذين يشاهدون تلفزة سات تي في في كل مكان ونقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشكركم على حسن متابعتكم وانتباهكم لبرنامج بنتم إسلام كل جمعة في هذه الساعة mbokki jullit yi mbokki téléspectateurs yi 7TV Telfaza allati tushbihuna wa tajmauna la télé qui nous ressemble et nous rassemble mooy télé bi ñu nuru ba noppi du ñu dajale ñi ngi leen di nuyu kenn ku ci nekk ci turam ak santam ak jëmmam di leen wax asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw bi nu sante yàlla tabaraka wa taala julli ci mawlaana rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw si loolu nag ñi ngi ñaan yàlla subhaanahu wa taala moom mi nga xamante ne moom rek moo yàlla moom mi nga xamante ne moom rek moo am moom mi nga xamante ne moom rek moo mën yàlla na defal ndam sunu njaati gi soxna may Maymuna Ndour Faye yàlla na yàlla sàmm ko yàlla na yàlla aar ko lii mu bëgg fii ci 7TV yàlla na yàlla defal ko ci lii lu jéggi njoortam te muy muur di njiglaay euh, di ndamal jigéen ñi di ndamal Afrique waaye di ndamal àdduna bi yëpp mbokki jullit yi dellusi si nanu ak yéen ci sunu ponk bi am solo bii nga xamante ne mooy ponk bi mujj ci euh, diiney lislaam muy aj màkka euh, ñi ngi taxawoon ak yéen nag ajjuma ba la ñu wees ci xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallama bi nga xamante ne wax na ne ya ayuha nnaas inna allaha qad farada alaykum alxajja fa xujju yéen nit ñi yàlla day farataal na ci yéen aj kon nag dem leen ngeen aji loolu la bi sallallahu alayhi wa bu ne nit ñi nag jullit ñi ñoo tax ñuy wax ku dul jullit moom aj waru la yow li nga war a njëkk def mooy nekk jullit d'abord waaye yéen jullit ñii la ci jublu yàlla farataal na ci yéen ngeen aj kon nag dem leen ngeen aji ñu ne euh, fa qaala rajulun euh, akullu aamin ya rasulallah wax nañu ne euh, am benn waaye bu tudd aqra ibnu xaabis dal di jóg ne ko ndax at mu jot lanu war a aji màkka yow mi yàlla yónni yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne pot waa ji répété waat ko question bi yonent bi ne pat waa ji répété waat ko yonent bi ne pat waa ji ne cell waxaatul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu ma ne woon waaw rek mu war ci yéen bu ma ne woon waaw rek kon dafay war ci bépp jullit at mu jot nga aji màgg te loolu du ngeen ko mën ah law qultu naam la wajabat wala mastata'tum bu ma newoon waaw rek waaw at mu jot dangeen ngeen a war a aji màkk rek yàlla yàlla validé ko te kon bu boobaa seen coono lay doon du ngeen ko mën du ngeen ko mën du ngeen ko mën dana jafe ci yéen am na ñoo xamante ne xëy na yomb na ci ñoom at mu jot ñu dem màkk am na ñoo xam ne loolu ak tànk ci ndaali naan la yemale waaye am na ñoo xamante ne sama classe bi nga xamante ne boobu ba léegi ñu ngi koy ñaan yàlla te yàlla defa la gunu ko benn yoon bi farata bi yii ñuy wax yëpp ci téere yi dañ ko jàng xamuñu fu màkk féete <laughs> yàlla nañ ko yàlla <laughs> yàlla nañ fa yàlla yóbbu nag yóbbu leen fa yéen ñëpp loolu bu doon farata ci ci ci ci ku ne ci jullit bu ne at mu jot kon sama classe gi fu nu jëm moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne cel fatt bunt boobu bunt boobu waa jooju aqra ibnu xaabis bunt boobu bu ko ubbi woon rek maara day tali musiba coono bu rëy lay doon fitna gu rëy lay doon ci kaw al umma al islamiya yonent bi salaay salaam ne nag ne gis nga fu ma yemati dee leen yam foofu bu ma leen digalee mbir def leen ci seen kamtalaay kàttan bu ma leen tere ngeen bàyyi mais nag topp ma nag ak yenn question yi di ruq-ruqaat yeeg yooyu ba indil seen bopp loo xamante ne ngaañ seen ngaañ lay doon bu leen ci duggati maa ngi leen di fàttali ne xeet yi ñu fi jiitu woon ak seeni yonent li leen dara alagu leen ludul wuute guñ daan wuute ak seen yonent yi ak question yu questionnement yu bari lu ne ñu laaj ko lu ñu dugg ci lu luqu luq njuur xamuloo ne nit ku am teggin sax warul di laaj kilifaam yenn laaj yu bari yi boo àndee ak sa kilifa du teggin ngay dox ci kanamam moom mu nekk ci sa ginnaaw lu dul guddi wala foo xamante ne peut-être dafa danger dafaa nekk bu boobaa de yow njaboot bi yaa war a jiitu nga dékku loolu mais bu dul loolu bu ngeen di dox fu leer naa ñi rek sa kilifa mu nga war a bàyyi mu jiitu sa kanam yow nga topp ci ginnaaw waruloo du teg du ay teggin ngay wax ak sa kilifa sa kàddu fe eh, gën a yëkkatiku sa kàddu kilifa loolu du ay teggin du du njàngalem eh, l'islam du yaru diine du ay teggin aussi ngay waxtaan ak sa kilifa njëkk a comme sooke waxtaan bi sooke waxtaan ca sa kanamu kilifa loolu du ay teggin bàyyil ba kilifa gi sooke waxtaan wi nga ne tekk di ko déglu bu amee lu mu la laaj nag nga tontu ca te mu doon tontu bu gàtt yépp ay teggin la yoo xamante nit ko nit ki daf ko war a xam du ay teggin aussi nga toog ak sa kilifa di ko laaj laaj laaj laaj laajee laaj du dul jeex du xaj loolu du ay teggin yooyu yëpp dafa jar a xam moo tax yonent salaay salaam ne fu ma yamati yam leen lu ma leen wax sant lu ma leen sant def lu ma tere bàyyi leen euh, aj nag <coughs> aj nag am na ay ngëneel yu baree baree bari yoo xamante ne euh, amul ci benn xeetu jaamu yàlla lu dul ci moom ci xeetu jaamu yàlla yi jaamu yàlla la goo xamante ne nag moom aj ibaada maaliya la waaye ibaada badaniya la maanaam euh, da ngay jaamu yàlla ci sa alal mais dangay ngay jaamu yàlla aussi physiquement ci sa yaram maanaam jaamu yàlla boo xamante ne daal yaram maanaam physique ak alal ñoo koy defandoo parce que alal ji moom ngay dépenser ci yoon wi moo xam da ngay jënd billet wala maanaam daal li ngay dépenser ci yoon wi bu dee ci jamono ji mooy li ngay jënd sa billet ak li ngay sa argent de poche ba ngay yóbbuwaale ak li ngay bàyyi sa njaboot ba ba ngay dellu soir parce que yooyu yëpp dafa jara bàyyi xel kenn warul dem màkk te amuloo argent de poche kenn warul dem màkk te amuloo loo bàyyi ak sa njaboot kon gis nga istitaa bi dafa yaatu lool mën gi dafa yaatu lool de dafa yaatu lool faw nga mën a am loo jënd billet faw nga mën a am loo bàyyi ak sa njaboot faw nga mën a am loo yóbbaloo ba ba ngay dellu siwaat te doo fa sonn waaye aussi sa jëmm mooy dem te it nag boo gisee docteur yi bala ngaa dem ñu jaarloo la kër docteur ñu visiter la xool ba xam ndax yow mii amuloo euh, tension buy yéeg wala amuloo tension buy wàcc wala amuloo lii wala amuloo laa wala daal amuloo benn jàngoor boo xamante ne euh, coono aj gi euh, euh, mën na ko mën na ko gën a mën na ko aggrave ah yooyu feebar bu nekkee ci sa yaram docteur dañ lay wax bul dem parce que bari na ku fa dem dee dara waralu ko lu dul dafa am feebar bu nekk ci yaramam rek boo xam ne coono aj àttanu ko mu dem rek daal di faatu kon yooyu yëpp moo waral docteur yi di ko saytu jaamu yàlla la boo xamante ne yaram jëmm koy def muy yaram ak force force physique ak euh, ak alal yool ba nag moom foo ko takk rek weesu na ko njariñam aussi ci jullit ñi njariñ gu njariñ lu yaatu la lu lu lu gëndale la njariñ la woo xamante ne amul yamukaay gis nga moom rek mooy congrès <laughs> allahu akbar gis nga aj yàlla wane na ci doole l'islam yàlla wane na ci l'islam mooy dëgg aj rek mooy congrès annuel bi nga xamante ni c'est mondial congrès boo xamante ni at mu jot àdduna bi yëpp ñoo fay daje waxleen ma beneen congrès bu dul aj boo xamante ne at mu jot àdduna bi yëpp daje fa na xeet yëpp daje fa amul benn rek la benn rek la al mu'tamar asanawi alaam déedéet benn dong la mooy ban mooy aji màkka bu ko defee euh, gis nga li taarafu gi yàlla waxoon ne wa jaalnaakum shuuban inna xalaqnaakum wa jaalnaakum shuuban wa qabaila li taarafu inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee na dama leen a bind ba noppi def leen ay nation ay nation yu wuute seen bind yi nu róowul seen li <laughs> seen aada yi nu róowul yi ni ngeen di solo nu róowul seen làkk yi bokkul ah seen marchandise yu réew yi bokkul seen climat ak seen température yu réew yi bokkul c'est yéen ñëpp ngeen daje màkka ak seeni diversité li taxaarafu pour ngeen xamante inna akramakum inda allahi atqaakum waaye nag ki gën ci yéen nag mooy ki gën a ragal yàlla rek gis nga bokk na ci ay njariñam ginnaaw xamante bi parce que nee nañu euh, euh, àdduna moom euh, li koy doxal ñetti baat dong la waxaja waxaja waxaja waxante il faut ngeen waxante d'abord kii wax kii déglu ko kii wax tontu ko ngeen comprendrante xaa ngeen xamante mënu leen a xamante ta waxantewu leen kon donc wa moo jiitu xa waxante xamante ja di soog a ñëw jariñante mënu leen jariñante te xamante leen c'est pas possible xama xamuloo ma xamuma la lu <laughs> ñu jariñante ah waaye kenn ku nekk am na sañ-sañ buy dem ca aj ga marchandise bi nekk ci réewam mu jënd ci lu bari yóbbu waale jaay teg ci bénéfice am jaay ko foofu jël bénéfice def ci poosam def ci gafa gaam loolu loolu loolu loolu dagan na ci aj loolu bokk na ci njariñ yi nga xamante ne aj daf koy ëmb bu ko defee kon marché mondial lay doon boo xamante ne luuma lay doon boo xamante ne adduna bi yëpp ñoo fa indi seeni marchandise kon fu marchandise boo soxla ci adduna bi rek kon boo demee màkk rek war nga ko fa mën a fekk parce que waa adduna bi yëpp ñoo fa dajate kenn ku nekk indi na la am réewam bu ko defee muy essence économique boo xamante ni kenn mënu la koo nettali loolu bokk na ci njariñ yi nga xamante ne aj màkka am na ko bu ko defee yow nga jënde foofa nag bagage yi nga xamante ne euh, amul ci sa réew moo xam ca marchandise yu réew ma la wala ci marchandise yi ñii gan ñii ñëw la yow yóbbu sa réew gis nga déjà kon ndekete ci biir aj am na import export bu ci nekk di nga génnee sa marchandise réew pour jaayee ko ci biti mais di nga jëndee marchandise u yeneen i réew pour indi ko ci sa réew loolu bokk na ci njëriñ aj waaw loolu boo ko defee it amuloo ci benn bàkkaar waaw def ko sa commerce ci biir ci biir aj Makka yi amuloo ci benn bàkkaar d'ailleurs sax dafa bokk ci ay avantage <coughs> njariñ lu réy la daal ci jullit ñi te it tiyaaba bu rëy rëy moo ci nekk mooy nag jihaad ci yoonu yàlla jihaad ci yoonu yàlla xare <laughs> bataay ñeel ki nga xamante ne moom dafa lottu ci xare ki nga xamante ne xanaa suñu armée yi rek sax am na ñoo xamante ne bu ñu demee di pour recruter wu rek bu ñu leen bu leen docteur yi euh, seetee dañ naan leen yow da nga inapte parce que dañuy gis ni am na lu manqué ci yow loo xam ne <laughs> so loolu ci ku mu manqué matul mënul nekk soldaar <laughs> mënul nekk soldaar hmm? koo xam ne dafa am crise cardiaque kooku jar <laughs> kooku kenn du ko def soldat ah muy dem ba ci diggu front ba dafa piqué crise koo xam ne dafa am ay épilepsie kooku warul nekk soldat koo xamante ni dafa chétif néew doole ba boo ko ëffee mu daanu kooku <laughs> kooku warul nekk soldat koo xam ne wayu wayul xel mi wayul kooku warul nekk soldat kon donc jihaad ji boo ciy dem sa lépp dafa war a bat ah physiquement moralement sa lépp dafa war a ak li mu laaj ci wér-gu-yaram ak yëpp daf ko daf koy laaj waaye ki nga xamante ne nag moom moom am na gàllankoor mënul dem ci xare bi il n'est pas un bon soldat il n'est pas apte pour être soldat kooku yonent bi sallallahu alayhi wa nee na aj màkka mooy ak jihaadam allahu akbar est-ce que jële nañu ci alxasan ibnu ali ibnu abi talib radiallahu anhuma xasan nag boo ko déggee mooy magu xusayn ñu bari nag dañ dañu yaakaar ne xasan ak xasan ak xusayn ay cheikh la ñu déedéet asan moo mag màgg na ko six mois allahu akbar maanaam euh, soxna si dafa am doom six mois après rek mu jëlaat ëmb parce que seen yaay Fatima daawul gis régal daawul gis baax moo tax ñu koy wax albatula waaw xale yi màgg nag tolloo waaw kii tudd ñu tudde ko alxasan mooy lu rafet ku rafet ki ki ñu tudde ko alxuseyn mooy ku rafet ku tuuti ki tasgir hmm? alxasan mooy ku rafet alxuseyn mooy ku rafet ku ndaw waaye ñu bari dañu yaakaar ne ay cheikh lañu déedéet duñu ay cheikh Xasan mooy mag Xuseyn mooy mooy rakk jël nañ na ci Xasan mi nga xamante ne mooy mag doomu Ali ibn Abi Talib ak Fatimata Zahra radiyallahu anhuma mu wax ne an rajulan jaa ila nabiyi sallallahu alayhi wa sallam fa qaal ya rasul allah inni daifun wa inni jabbaan fa qaala halumma ila jihaadin la shawkata fiihi alxaj allahu akbar xasan nee na dafa am ku ñëw ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko yow mu yàlla yónni xare ak ni mu baaxee ak ni mu amee tiyaaba ak yu yu yu baax yi ci yàlla wax yépp ak xéewal yi ci yàlla wax ak ñi dee ci xare li leen yàlla réserver ci ay aljanna jéggal gi mu leen di jéggal ak ñàkk a topp gi mu leen di ñàpp ñàkk toppee dara bëgg naa ko de waaye nag man dama amul kàttan man aw ma doole aw ma kàttan bu ma xeexee dama néew doole torop am na nit ñu mel noonu te itam ab ab buqat ab tàppet laa <laughs> am na ñoo xamante ne amuñu fit amuñu fit ne sama ne ko man awma fit man lu yënguma ma daw <laughs> subhaan wax na boppam yonent bi de <laughs> te bëgg naa tiyaaba ji nga xamante ne ñii aji màkk moom lañuy am manit ma am ko yow mi yàlla yónni ah yonent bi sallallahu alayhi wa ne ko ah wax nga dëgg de eh, halumma ila jihadin la shawka fi alhaj kon nag kaay ma wax la yoonu xare boo xamante ne danga boo ko defee yàgg ñi dem ca toolu xare ba yéen a yem ci tiyaaba te amul arme amul aussi coono amul yëkkati jaas yi amul jaamaarloo ak noon amul bataay yooyu yëpp amu ci mu ne ko loolooy lan yaa rasulallah mu ne ko alxaj mooy aji màkk boo aje màkk yàgg ki jihaad yéen a tolloo tiyaaba allahu akbar kon jullit ñi lan ngay dégg ci loolu képp koo xamante ni bëgg nga bu ëllëg yowmal qiyaamee ñi daan xare ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu taxaw nga taxaw fa garat bu ñu leen tappal tappal la ko daraja ju ñu am nga am ko aj demal nga aji màkk demal nga aji màkk aj bu sell nag moo tax ñuy wax nag waxuñu nag gañe gëdde nga maam loterie <laughs> gañe loterie dem ajaji ko ah, ajuloo kooku moom dafa defoon touriste rek tourism tourisme tourisme la defoon rek dafa demoon doxantu ji Arabie Saoudite gis Kaaba geeg dégg nga maam Arafat ak yooyu rek euh, fa ñu sànnee jamono dal di dellu siwaat waaye ajul ajam baaxul wala jaay drogue ba bari xaalis aje ko ajoo wala tiryande alalu jàmbur sàcc alali nit ndax doomu aadama bi jël alal ja aje ne yaa ngay aji màkk ajuloo ajuloo yonent bi salaay salaam am na ñoo xamante ne bu nee labbayka allahumma laka labbayka wuy si naa la si naa la ah inna alhamda wa nicmata laka wal mulk laa sharika lak ma la xéewal la yow yàlla nguur rek yaa ko moom kenn ku ñuy bokkaale ak yow ku ñu ne yàlla nga ku dul yow dañ koy nax du yàlla te ku ne waxul dëgg du yàlla ndeysaan xam nga baat bi rëy na de waaye yonent bi nee na am na ñoo xamante ne bu ñu waxee baat bi ba noppi malaayika ne leen laa labbayka wala saadayka lak waaw yàlla nee na wuyuwu la tontuwu la yàlla nee na bokkuloo ci ñu war a texe pourquoi zaaduka xaraam wa raxilatuka xaraam sa yóbbal bi nga xamante ne mooy sa argent de poche fi nga ko jële lewul fu salte nga ko jële da nga koo sàcc da nga koo tiryande ah wala da eh, ngaa danga ngaa da ngaa da teggi jackpot bi dégg nga maam da ngaa joué ca carte ga gañe bi <laughs> jackpot ba ne yaa ngay aji màkk <laughs> ajoo ajuloo yàlla du ko nangu ah waaye daal bu fekkente ne daal la nga deme yaa ko moom Eh, sa yóbbal yaa ko moom nga dem dem bu sell kooku mën na am yaakaar ci yàlla subhaanahu wa taala kooku la yonent bi salaay salaam wax ne mokki jihaad benn lañ <coughs> yonent bi salaay salaam mi benn xadis daan jihaadul kabiri wa daifi wal marati alhaj yonent bi salallahu alayhi wa sallam ne ne jihaadu ku màgget paa bu màgget boo xamante ne wala mer bu màgget boo xam ne moom mënatu la mënatu la dem ca xaraja màgget na ndeysaan yax yi léegi funux na attanatul xare ak ku loof maanaam koo xamante ni kii euh, amul amul kàttan comme waa ji ñëw léegi rek ne yonent bi man dama ragal te dama néew doole kooku ku aji loof la ak jigéen yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñooñu seen aj ñooñu mooy seen jihaad jële nañu ci abi hurayrata radiallahu anhu mu wax ne dafa am ku laaj yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko ayul amali afdal qaala ay imaanu billahi wa rasulihi dafa ñëw ne ko ban jëf moo gën moo gën ci jëf yi mu ne ko xanaa gëm yàlla ak yonentam bi qiila summa maada qaala xajjun mabruur mu ne ko lu ci topp mu ne ko xanaa aj gu yàlla nangu buxaari ak muslim ñoo ko solo ngeen xam ne nag mbokki jullit yi nañu bokku xam ñun ñépp ne aj daal dafay kafaara mbooleem bàkkaar yi bàkkaar yu mag yi bàkkaar yu ndaw yi ci mbooleem waxi boroom xam-xam yi yépp ànd nañ ci ne aj màkka daal dafay kafaara mbooleem bakaar yi nga xamante ne yii doomu aadama bi def na ko loolu nag ñi ngi teg rek seen wax ci waxu yonente bi salallahu alayhi wa sallama man xajja fa lam yarfus walam yafsuq rajaa ka yowmi waladatu ummuhu eh, yonente bi salaay sallam moo wax ne képp koo xamante ne aj nga màkka te defuloo fa genn caay-caay waxuloo fa genn caay-caay wëlbatiku nga dellu sa réew set wecc ci ay bàkkaar comme keroog bala sa ndey juree kon nag dafa mel ni sama technicien Alsane Sène mi ngi may euh, signaler ne li ñu amoon ci waxtu jeex na euh, kon nag ñi ngi nuyu ñëpp di ziare ñëpp maa ngi beral nuyoo nag sama baay bu baax baay Souleymane Niang waaye maa ngi ñaanal aussi sama baay El Hadji Jabel Mbaye fële mu tëdd ca bopp jumay jandeer ji yàlla na fo yàlla yàlla yàlla nay château ci euh, château ci al château aljanna ya ci moom maa ngi nuyu njabootam yëpp maa ngi nuyu sama Euh, jarbaat grand ñu koy wax euh, grand Guèye kër Guèye maa ngi nuyu son papa papa Talla Guèye maa ngi nuyu papa Djibril Samba maa ngi nuyu Lamine Guèye ivoirien Lamine Guèye camerounais papa Koli Guèye sama mbokk yooyu ca Tëngéej ca leen ca Rabeen Euh, di ay sëti Sémou Gueye maa ngi leen di nuy yéen ñëpp di leen ziare di nuyu mbooleem jullit ñi ak fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di ñaan yàlla tabaraka wa taala yàlla na yàlla defal ñu dégg ak topp lu ñu am yàlla nu am yàlla lu ñu ñàkkit yàlla na nu am yàlla yàlla na yàlla defar suñuy mbir defar seen